jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare lamb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci stade Jom Iba Mar mise bi nag cinq millions la waaye mbokk yi compétition bi li ci gën a neex mooy ndaanaan yi doon séntu ci làmb rawatina bëre simple bi dañoo bindu ku mel ni Doudou Sané gis ngeen ko mu dugg si bindu ku mel ni Boy Faye ku mel ni euh, Serigne Ndiaye 2 Fambuda ak kan kii di nga xamante ne mooy Émile François Gomis ñëpp doon ko xaar ci lutte traditionnelle bi depuis bi muy préparé combat ak soq ba tey Franc xamoon naa ne dimanche su tey ji stade Iba Mar mënul mucc ci moom waaye di ngeen gis lamb ju neex lamb ju rëy lamb ju garaaw ngi noonu dugg si na Émile François Gomis a ngi noonu mbokk yi mbokk a ngi noonu dugg na ma nga noonu ndeysaan Franc dugg si na ndeysaan mu ngi noonu ndeysaan Emine François Gomis ma nga noonu ndeysaan ma ma nga noonu ndeysaan ma nga noonu

gannaaw may ma rek photo bi. noonu di ko butéel ab ma nga ca déeba moom Franc dugg si na ma ngay jug nañ ma dugg moom Franc ndaysaan ma nga noonu ma ngay bind rëdd na ci xibla yi samp na bee jën bi ndaysaan ma nga noonu moom Franc ma ngay léemu ndaysaan ma ngay léemu ndaysaan ma ngay léemu daw daw na ma wër oh Franc dugg si na ci compétition bi mbokk yi lamb ju nar a garaaw Franc ngi noonu ndaanaan yëpp daje ndeysaan ndaanaan yëpp daje ma di dem moom Franc leket ya na ndeysaan ma Ndeysaan Franc wa ngi nii mbokk yi dimanche bi weesu heure bi mu ko fekk fële Ndeysaan ñu ngay gas ñu ngay sotti ndox mi ma ngay tis ma ngay ñaan ma ngi raayoo moom Franc raay waat na ko moom Franc <laughs> raay waat Franc eh. ay Franc waay jox na gaay ndeysaan ma nga noonu ma ngay wër ndeysaan ma ngay léemu tibb na Franc ngi noonu ndaysaan ma ngay dem ma nga noonu di dem ma ngay wër ndaysaan ña nga noonu Franc ngi noonu di ñëw ndeysaan Franc ngi noonu di ñëw cey bi door Franc ngi noonu di ñëw Franc ngi noonu di ñëw ndeysaan am na lu mu wërale ba pare ma ngay moom Franc Ndeysaan ma nga ca débat déb ma nga ca xarfa xufa bi Franc ma nga ca gàllaaj ya ma ngay xool fan lay samp ci mikaayam ma xool ma ngi koy xool moom Franc

Television, Mamadou Thiaw Mamadou Thiaw Mamadou Thiaw Mamadou Thiaw Alassane Sarr Loro Ndiaye Alassane Sarr Baboucar Tine Saliou Faye Baboucar Tine Saliou Faye Ousmane Pouye ci animation merci

daw na daw na. Paul Menthe. ndeysaan Paul a ngi noonu. Paul Menthe. Paul Menthe a ngi noonu. ndeysaan.

mbokk yi Doudou Sané noonu dugg si na ma nga ca digg géew bi ma ngay def ay débat débam ma ngay bind di léemu def ci ngemb li moom Doudou Sané jaayu noo ma ngay dem ndaysaan ma ngay dem coppite am na ci diggante bi fa Serigne Ndiaye 2 defoon ci bi kaayam bi weesu Doudou Sané def xoolal soow mi xoolal sengoor yi xoolal gàllaaji hee Doudou Sané mbokk yi Doudou ngi noonu ndeysaan xoolal ñi mu àndal ndeysaan Doudou Sané ngi noonu ndeysaan l'enfant de Diof yoor a ngi noonu ndeysaan ndaanaan la ci mbër ma ngay toog ma ngay toog toog na tàllal na tànk bi toog na ci cimikaay bi ma ngay def débat débam ma nga ca wàllu débat déb bi këpp na leket bi suuf la samp na jël na ba samp na ko jàkkaarloo na géew bi génnee na beneen samp na ndaysaan ma ngay samp génnee wat beneen samp na ndeysaan samp na ko ja ma nga noonu moom Doudou Sané ma ngay def ay débat débat butéel yaa ngay génn butéel baa ngay génn ndeysaan butéel ba génn na butéel ba génn na ma ngay teg ah waay compétition bi Blindé sax ci biir compétition bi ma moom it moom bu Grand Médine ndaysaan dugg ci compétition bi gi ndaysaan ma nga noonu fan yee daa nekkoon ci di préparer leen di ba mu ci jugee gis ngeen ko ñëw na fii ci stade Diop Iba Mar ngi noonu badaa ngi noonu boo ko gisee rek xamal ni Serigne Ndiaye ñëw gisee rek xamal ni Serigne Ndiaye yegsi na badaa ngi noonu day ñëw indi waaye day bàkk bàkk bi yëpp ba daa ngi noonu ndeysaan moo ànd ak Serigne Ndiaye nee na tey mal la ndeysaan ba daa ngi noonu yegg si na ndeysaan na <laughs> ndaysaan bagage yaa ngay ñëw ma ngay dugg bi yëpp ci nekk fu mu dem moom lay wuyoo Serigne Ndiaye 2 moom lay wuyoo ci bëre dóor bi ndaysaan koréas da koo dab ndax wow gi mu wow dëgër gi mu dëgër mën a bëre gi mu mën a bëre ndaysaan Moussa Diafat Ada Boy Baol a ngi noonu ndeysaan ma ngay léemu yëkkati na loxo bi moom Ada Boy Baol ndeysaan Ada ngi noonu Ada ngi noonu ndeysaan Ada Boy Baol dugg si na ndeysaan Ada Boy noonu tey du yomb ndeysaan Ada Boy Baol ngi noonu noonu ma ngay jéggi moom Ada Boy Baol champion la Ada ngay léemu ma ngay dugg ndeysaan Ada Boy Baol a noonu Serigne Ndiaye de dugg si na aj na loxo bi ci kaw ndaysaan jublu na xibla yi ndaysaan ma noonu des ngeen ka muy àndal ànd ak moom <laughs> ndaysaan ma noonu Serigne ba xàmmee ngeen ko ndaysaan ma ngay nuyoo aj na bi aj na loxo bi Ndeysaan aj na loxo bi moom Serigne Ndiaye ma ngay léemu ma ngay léemu <laughs> ku nekk sa problème nee na day rendi nee na day rendi nee na day rendi ma ngay yëngu moom Serigne laa ilaaha illallah awaay ah lamb ji commencé na waay ma ngay léemu ba noppi sottee ko na ay ndeysaan ma nga noonu aj na loxo bi benn loxo ni joor bi ndeysaan ñu ngi koy sotti butéel yaa ngay ñëw gannaaw ba Doudou Sané duggee ginnaaw ba Franc duggee Serigne Ndiaye dégg ngi noonu dugg si ci compétition bi ndeysaan ma nga yëngu <laughs> laa ilaaha illallah ay waay làmb ngi nii waay i njaay de dugg na ma ngay sotteeku ma nga yëngu yëngu na ndeysaan yëngu na yëngal na yaram bi yëngal na ko <laughs> ma ngay dox ma ngay dox tey mënut a yomb. adim adim adim. déedéet ma ngay dem ci géew bi ma ngay wër di wër di wër. Ndeysaan ma ngay wër moom Serigne Ndiaye ma wër Ndeysaan ñu ngi koy wisal ndeysaan Toubacouta ngi noonu buuru Saalum ndeysaan saan nga noonu aj na loxo bi ndeysaan dugg si na moom Toubacouta Toubacouta ngi noonu ndeysaan ma nga noonu cey lam ma ngay sotte Toubacouta nga noonu <laughs> ndaysaan champion la ndaysaan ndaysaan yëkkati na Senghor ba sottil nañu ko butéel ndaysaan mu ngi noonu sengoor ya ñu ngi ko koy jàllaleel jàll na yëkkati na ko ma ngay jàllaat jàll na ma ngay jàllaat ndeysaan jàll na ma noonu di dugg si moom Toubacouta ndeysaan ma nga noonu ma nga noonu ndeysaan ma nga noonu di dugg dem arbitre bi moom ku yebu ñaanal ko rek arbitre kon combat bi dañu koy bërewaat ndeysaan ndeysaan ndeysaan stade baa ngay yëngu arbitre bi siflé waat na mbokk yi Petit Lo moo la féete ndi joor ndeysaan xale yaa ngay yëngu Ada Boy Baol a ngi noonu waa lii lan la <laughs> Franc yëngu na Franc yëngu na Franc yëngu na laa ilaaha illallah stade bi jóg na Toubacouta Serigne Ndiaye Ada Boy Baol Boy Faye ñu ngi yëngal bi daw nañ mbot ko mbot nañ mbot na war na ko ndombo war na ko ndombo Petit war na ko ndombo mbot nañu ko tàqali ko ñoom ñaar mbot nañ Petit Lo la ilaha daan nañ ko jël bu rëy oh. daan na ko jël bu

Ndeysaan Franc ngi noonu tay dina yomb tay xale yaa ngay yëngal ndeysaan ndeysaan Franc ngi noonu ma nga étiré wu moom Franc ndeysaan wala mu ngi waaj a sifflé ku jë premier combat poids lourd Famara Bassoul ak Toubacouta Famara Bassoul moo la féete càmmoñ Toubacouta moo la féete ndijoor moo la wan ginnaaw Toubacouta léemu na Famara Bassoul Toubacouta ndaysaan ñu ngi noonu Famara Toubacouta Famara moo la féete ndijoor Toubacouta moo la féete càmmoñ Famara jiital tànk càmmoñ Toubacouta jiital tànk càmmoñ Toubacouta nekk njool mu sëgg Famara nekk ku diggu dëemu Famara sa ndeysaan waay lii la la ndeysaan Famara ak Toubacouta Famara Bassoul Toubacouta ndeysaan Famara Bassoul Toubacouta ñu ngi lewaatoo ñu ngi leewaatoo Toubacouta daw na jël ko Famara bañ na Toubacouta reculé Famara Toubacouta Toubacouta Famara daw na jëli ko Toubacouta tëru na ko Famara ànd ak Géej Njaay Senghor waaye ay xaritam ay soppeem ngi lewaatoo mooy Ismaïla Njaay borom gi salaam ànd ak la ndeysaan karamba borom seexil Guinée yi moo yegg si daaw na jël ko. Famara jël na Toubacouta Toubacouta tëru ko. dara xewagul. daaw na jël ko Famara Toubacouta wër na dombo ndomba Toubacouta wër na ko ndomba Toubacouta wër na ndomba Famara ndaysaan Fambuda ak Toubacouta Toubacouta wër na ko ndomba Fambuda taba Toubacouta yëkkati na ko bañ na jug baasul ak Toubacouta Toubacouta nga koy jéem day génn saaku yi wër na ko ndombo xewagul day génn saaku yi Toubacouta daan na ko Toubacouta daan na Famara premier combat ci compétition bi mu ngi noonu Boy Faye moo ngem boo ngem lu ñuul li ñett ci tribune bi am nañ maana macha <laughs> ndeysaan ah. waaw say mu ngi noonu Famoura ndeysaan Boy Faye moom premier combat baa ngi noonu ngembo ngemb lu ñuul li ndeysaan mu ngi noonu ma noonu Ndeysaan ma nga noonu Boy Faye na Boy Faye na ko mbokk yi arbitre bi ngi noonu di waaj a siffler combat Emine François Gomis mbokk yi di Franc ndaysaan ginnaaw ba mu bëree fële ci arène nationale diggante ma soq am ta ndam mu ngi doog a bëriwaat ñu xool première sortie Franc fii ci li cinq millions Franc nu muy def day delloo mbattu ca wala déet ma ngay lewaatoo moom Franc ma ngay lewaatoo ndeysaan xale ba muy bëreel muy tuna xale bi daw na jëli ko Franc bañ na ndeysaan daa bëgg jàpp xale bi xale bi bañ ña ngay bëree ndeysaan Franc ngi noonu ndeysaan ma nga ña ngay lewaatoo boy bi daaw na jëli Franc Franc koy jéem a jàpp bi ngàdd na ko jëli na tànkam ñu ko bëgg a bëre ndaysaan ñu koy bëgg a xale bi daa bañ ndaysaan poids lourd ak poids waaye ci compétition bi ñoom ñaar ñëpp ay poids lourd lañ lu mën a xew mooy ñu ngi noonu ci compétition bi ndeysaan Franc ndeysaan ñu ngi noonu ñu ngi ci komba bi ba tey combat bee ngi bëgg a diire ndeysaan xale baa ngay bëre bi mooy premier combat Franc ci compétition bi mais moo nekkoon premier komba Boy Faye ci compétition bi avertissement Franc avertissement adversaire bi ndaysaan arbitre bi sifflé waat na ba tey ndaysaan Franc ma ngay lewaatoo booy bi daw na jëli ko bañ na ndaysaan ñu ngi noonu ñu ngi lewaatoo Franc jàppagul booy bi bañ na Franc du ko bëgg a jàpp xale bi bañ booy ba tëj na bëre bi ndeysaan ña ngay bëre Franc bëgg na ko sol booy bi bañ na Franc jëli na ko Franc jëli na ko Franc jëli na ko daan na ko waaw daanu na waaw waaw waaw daan na ko c'est normal sifflet moo leen boole sifflet moo leen di tàqale ndaysaan sifflet moo leen boole moo leen tàqale c'est normal ndaysaan Blindé mu ngi noonu bu Grand Médine ndeysaan Abou Ndiaye Blindé mbokk yi Abou moo la woon ginnaaw Blindé nga jàkkaar lool Blindé Abou Ndiaye ndeysaan ñu ngi noonu Blindé Abou Ndiaye Blindé Abou Ndiaye Blindé Abou Ndiaye Blindé Abou Ndiaye Blindé Abou Ndiaye ay xool bokki premier combat Doudou Sané ci compétition bi ma nga noonu moom Doudou Sané moo la woon ginnaaw ngemb ngemb Lagos bi mbokki mu ngi noonu ma ngay lewaatoo moom Doudou Sané ndeysaan ma ngay lewaatoo signalé na nee gisul bët ba daa fat Ndeysaan Doudou Sané moo la woon ginnaaw daw na jëli ko Doudou Sané jëli na xale bi xale bi bañ na ña ngay bëree ña bëree daw na dóor ko tànk mu bañ Doudou Sané xëpp na ko ñu ngi bëree nee na aya Ndeysaan nee na ko mu ko dóor ñu ngi leewaatoo waat ñoom ñaar wéq na ko dóor na ko tànk Doudou Sané dóor na ko tànk ndeysaan ñu ngay bëre ñu ngay bëre ndeysaan ñu ngi Doudou Sané ma ngay bëre ndeysaan ma nga noonu moom Doudou Sané ndeysaan mi ngi noonu ñu ngay lewaatoo Doudou Sané ngi noonu ma ngay lewaatoo ndeysaan mbokk yi ñu ngay bëre Doudou Sané ndeysaan combat baa ngi noonu mbokk yi baa ngay xaw a diire waaye ku nekk ñu ngi ci digg géew bi ndaysaan Libidor a ngi ci digg géew bi ndaysaan Serigne Ndiaye 2 mu ngi ci digg géew bi Ada booy Bawol mu ngi ci digg géew bi Doudou Sané ngi ci digg géew bi ñu ngay bëre génn nañ saako yi ñëwaat Ndeysaan mi ngi noonu arbitre bi sifflé mu ngi noonu ci compétition bi Serigne Ndiaye 2 aussi mu ngi noonu premier combat ci compétition bi ndaysaan ñu ngi noonu Doudou Sané génne na ko combat ba daa nar a jeex ndaysaan arbitre bi joxe na avertissement def ak li ñu def dafa juum loolu du avertissement. lan du avertissement jàpp karaw nit si bopp loolu du avertissement. waaw karaw ci nit la parce que karaw si nit la bokk parce que karaw duuru saane noonu la ko Serigne Ndiaye daane. waaw noonu la ko daane te rakki buuse bi bi mu fi bëree ko tam def ay rasta tamit dañ jàppal si rasta yi di ko dóor. waaw boo xoolee combat arène nationale rek bëre dóor am na fa. waaw adversaire bi jàpp kenn ki ci rasta yi di ko dóor di ko dóor di ko dóor ba mu daanu jaadu na. kon arbitre match foofu moom dafa juum. juum na dëgg la ndaysaan arbitre bi sif la waat na ndaysaan Serigne Ndiaye 2 xale bi daw na ko ndeysaan lu xew ndeysaan lu xew mbër bi ngemb lu tas na ci karaw gi ndeysaan waa lii lii lan Lalla mais tamit arbitre yi Serigne Ndiaye mu ngi ci géew bi faw ñu xam ni karaw ci règlement bi la bokk mbër bu yar karaw bu ñu jàppee sa karaw bëreeg yow bu ñu la daane jaadu na jàppante nañ awoy awoy ndeysaan ndeysaan Serigne Ndiaye daan na Ada Boy Baol arbitre bi sifflé na moom i premier combat Ada Boy Baol ci compétition bi mu ngi noonu premier combat Ada Boy Baol mu ngi noonu ci compétition bi Franc daan na premier combat am Doudou Sané daan na premier combat am Boy Faye daan na premier combat am Ada Boy Baol premier combat ma ngi nii Toubacouta daan na premier combat ndeysaan ñu ngi noonu ci compétition bi ci suuf eh. Ada Boy Baol Ada Boy Baol daan na premier combat am ci compétition bi ndeysaan Ada Boy Baol daan na ndeysaan door libi door a maa libi door a maa libi door daan na ko door daan na ko mbokk yi premier combat Mamady Ndiaye mu ngi noonu ci compétition bi arbitre bi sifflé na Mamady Ndiaye moom nga jàkkaarlool waaye tey damaa yaakaaroon sax bërewul Mamadou Ndiaye daa ñëw toog ci tribune bi sol yëreem laalul benn butéel ñu woo ko mu wàcc ci meeku takk ngembam ñëw bëre Mamadou daal Mamadou la Mamadou Ndiaye daal Mamadou la mu ngi lewaatoo ki jiite délégation bi di Bara Thiam ñu ngay lewaatoo ñoom ñaar Abdou Diop combat bu nar a neex ñu ngi lewaatoo Baye Thiam Abdou Thiam ñu ngay lewaatoo ak El Hadj Sall ñooñu la ñu woo délégation boobu nga xam ne mooy les délégués. ndeysaan ku ne day taxaw sa kanam rek. kon Thiaté frère. bëre simple daal bëre simple la. kon délégation bu mag boobu. Toubacouta ku mu am. Bass Sa Thiès. Bass Sa Thiès. waaw ah, moo nekk nii. Bass Sa Thiès de Balla Gaye la gën a nduróol sax. Oh, mooy Bass Sa Thiès. combat bu neex. Toubacouta démb dafa daanu final. waaw Ndiol Géant moo ko daan. Ndiol Géant nañ ko bàyyi xel bu bari ñi. xale la boo xam ne day bëre. sa yaram foo ko song day bëri su la songee day bëri. bu la daanee day mel ni jëlu sax compétition. te léegi li mu xewal bu dakkut. waaw balaa booy di ko daan léegi day pàddee te njool muy a bon. moo a garaaw. ndax jën yi daa jot. mu bëre. boo ko songee mu door a tànk bu la songee. waaw loolu nangul wàcc si Dakar bëre. non wàcc na fi Grand Yoff. Grand Yoff waaw waaye na fi jën Iba Mar lañ ko gisagul mu wàcc wala arène wala terrain gaal gi wala arène nationale gisaguñ ko suma waaye àll moom oh mi ngi koy jeexal. ordinateur. Modou Faye. kooku mi ngi ñëwaat. waaw lu tax moom it ñu ko koo gis. waaw dafa gaañu woon si loxo. waaw dafa gaañu woon si loxo. waaye defar waa pour ñoom moom ak Alpha Niodior Cheikh Tidiane Niang. waaw Sélé Mélé. dinañ xëy na dañuy defaru pour pour jëw. ndax booy gis nañ ku mel ni Franc gëj naa génn si si làmb waaye tey ñëw na lan nga gis ci moom ak état de forme bi mu indaale. xam nga Franc athlète la boo xam dafa complet waaye simple amul favori léeg nga gis favori koo xam ne nga yow favori mu ñëw juum daanu mi ngi mel ni li daloon Doudou Sané keroog Gandiaye moog général Malika premier tour lañ leen boole ko kan mu nduur démb dañ kaa daan lamb simple amatul favori léegi ndax booy buñ daan doo ko yëg ndax yow li ngi leen di sóoraale si loolu loolu nañ ko bàyyi waaye Sa Thiès ngi daw merci merci am na solo ndeysaan Zayan Sa Thiès ak Toubacouta Toubacouta Sa Thiès ñu bëre wëree nañ Mamadou Ndiaye jël na tànk bi da koy buddi Mamadou Ndiaye jël na tànk bi da koy yëkkati dina jóg Mamadou Ndiaye jël na tànk bi yëkkati na ko wàcce waat na ko da koy yëkkati na ko daaluwul laa ilaha illallah wëcc nañu ko wër nañ ko ndomba waaye lii lan la eh Mamadou Ndiaye daan na ko laa ilaha illallah eh, oh kii mooy cat bi cat léegi noonu Thank you.

mbokk yi deuxième combat comp ci compétition bi Boy Faye Paul Menthe Paul Menthe di joor waaye Boy Faye moo ngem boo ngem lu ñuul li Paul Menthe Boy Faye ndaysaan Paul Monté Boy Faye Paul Monté Boy Faye Paul Monté Boy Faye daw na jëli ko daw na jëli ko Paul Monté bañ na Boy Faye Paul Monta Paul Monta jaxabal na ko Boy Faye bañ na kalu biti ndeysaan Paul Monta Boy Faye ndeysaan Ada Boy Baol ak Moussa Diop ndeysaan Paul Monta Boy Faye mbot na Boy Faye daan na Paul Monte Boy Faye na ko ñu ñëwaat ci Toubacouta ndaysaan Toubacouta bas ngay génn rek ci compétition bi Njaay gi noonu kii mooy jatli la ren jatli la kii mooy borom ñetti génération yi waaw dafa bëre ay moromam. waaw bëre ay magam. waaw ñu ay jarwaatam lay bëre ay ay ay doomam. wallaay dëgg la. 2002 ba léegi. ñu mbokk génération bàyyi nañ. dëgg la 2002 ba mu simple bi. kon néewul doole de. sax dina jeexal booy yi dina jeexal booy yi. ndaysaan. Bassa Thiès. ak Toubacouta ñoo ngay bëre Toubacouta ba Sa Thiès Toubacouta ba Sa Thiès yombagul ba Sa Thiès bëgg naa jëli tànk bi ba Sa Thiès Toubacouta daw dañ jàppante ñu ngi ci mudaay na ak Franc arbitre bi sifflé na Mboudaye na ak Franc ña ngay lewaatoo Mboudaye na ak Franc Mboudaye na ak Franc ñu ngi ci compétition bi Mboudaye na Franc Mboudaye na daw na jëli ko mu daay ne daw na jëli ko mu daay ne Franc mu daay Franc mu jàpp bi baax na Franc bañ na mu daay ne ñu ngi ci compétition bi mu daay ne Franc jàpp na fi mu baax na mu daay ne fi baax na Franc bañ na téena bopp bi mu daay ne mbot na yegg nañu mu daay ne Franc mu daay da franc <laughs> mu daay da franc ñu nga ci bi ñoom ñaar mu daay da fi mu takk baax na tegal sées ma ngay xeeñ franc crochet na loxo loxo bi mu daay na franc est-ce que mbot mun naa am wala déet mu daay na franc mu daay na franc ñoom ñaari mbëri ndaysaan Moudaye de Franc Moudaye Moudaye de ak Franc <laughs> Moudaye de ak Franc Moudaye de fum jàpp baax na Moudaye de ak Franc ñu ngi ci compétition bi ba tey Mboudaay na ak Franc Mboudaay na daw ak Franc Mboudaay na ak ak Franc Moudaayna ak Franc Moudaayna ak Franc Moudaayna ak Franc ñu ngi jàppante ba tey Moudaayna fi mu jàpp baax na Franc mbot nañ saaku yi da koo bëgg a jeexal Franc ngay arrière Franc ngay arrière da koy plaqué daan na ko Franc na Franc daan na mu daay daan na ko jël bu rëy Toubacouta Toubacouta Toubacouta ba Sa ak Toubacouta combat bi yàgg na ba Sa Thiès Toubacouta ba Sa Thiès ba Sa Thiès

ndaysaan ba Sa Thiès Toubacouta ñu ngi jàppante ba tey lamb ji tey lamb ji daal dama yaakaar lamb saltigéey la ku nekk ngi ñëw di wane boppam ba Sa Thiès Toubacouta ba Sa Thiès Toubacouta

combat bi wala du ba Sa Thiès Bas jël na koy jongale bañ na ba Sa Thiès Toubacouta ba Sa Thiès Toubacouta arbitre bi sifflé Ada Boy Baol Serigne Ndiaye mbokk yi ñu ngi noonu ñoom ñaar Ada Boy Baol moo la woon ginnaaw Serigne Ndiaye 2 moo la woon kanam moom ngeen jàkkaar lool ndeysaan Ada Boy Baol Serigne Ndiaye Doudou Sané mu ngi ci géew bi moom it Ada Boy Baol Serigne Ndiaye ma nga ca daw na Ada Boy Baol Serigne Ndiaye ñu ngi bëre Ada daw na jëli Serigne Ndiaye deux bañ ndeysaan Ada Boy Baol Serigne Ndiaye deux Doudou Sané jëli na ko Doudou Sané jëli na Doudou Sané jàpp na tànk ba booy bi rëcc na laay laay la laay ñu ngay booy bi rëcc na Doudou Sané nga koy añ mu jaay doole booy bi bañ na ana booy bawal Serigne Ndiaye Doudou Sané jàpp na booy bi booy bi bañ ndeysaan ñu ngi noonu Ndeysaan Doudou Sané daw na jëli xale bi Doudou Sané na ko mu ngi koy génnee Ndeysaan Boy Bawol Serigne Ndiaye Boy Bawol Serigne Ndiaye Ada Boy Bawol Serigne Ndiaye Ada booy Baol Serigne Ndiaye Ada jàpp na ci kiwi saar bi Ada Boy Baol jàpp na ci kiwi saaru Serigne Ndiaye bi ñu ngay bëre ñoom ñaar Ada Boy Baol Serigne ñu ngi ci compétition ba tey Ada Boy Baol Serigne Ndiaye Ada daw na jëli ko Ada daw na jëli daan na ko daan na ko daan na Ada Boy Baol wala déet arbitre bi woowaat na leen bi woowaat na na leen nee na jël amul ay ca mbokk yi at bi sifla waat na Serigne Ndiaye Ada Boy Baol jël tànk bi jël tànk bi Ada rëcc na Serigne Ndiaye fa beere na ko jël na Ada bañ na ndaysaan bëre Serigne Ndiaye zongale na ko tegal na ko siège Ada daan na ko daan na ko daan na Serigne Ndiaye daan na Ada Boy Baol mbokk ngi noonu Franc yëngu Franc yëngu ndeysaan Doudou Sané avertissement adversaire Doudou Sané ndeysaan Doudou Sané ngi noonu ndeysaan arbitre ngi sifflé waat ndeysaan ba tey Doudou Sané mu ngi ci combat bi ndeysaan Doudou Sané mu ngi ci compétition bi moom Doudou Sané ndeysaan ñu ngi noonu Libidor nga jàkkaarloo waaye Doudou Sané moo la woon ginnaaw ci combat bële ñoom ñaar ku ci nekk mu ngi ci compétition bi Doudou Sané daw na jëli xale bi booy bi bañ na Doudou Sané faqat na ko booy bi bañ na ña bëre booy yi dañoo na koo lu ne def ñu bañ xale yi beneen affaire la. ndeysaan Doudou Sané. ndeysaan ñu ngi noonu.

mu ngi ci buntu bi. ndeysaan kooku de kooku de man lay wax fi ma gaare sama oto bi te fi ma ko gaare baax ma <laughs> ndeysaan ñu ngi noonu. yaakaar naa ne tey arbitre bi daa ngi wa waaye dañu jàllat pirement rek Doudou Sané mooy le Messi de Mbour muy monsieur ndeysaan ak xale ba Karamba la ñuy woo délégation Karamba la ñu bëgg mu ñëw fi indi teranga bi ñu indi ci làmb ci tey ñu tuddee ko bés bi kon monsieur Karamba le Messi borom Simitini yow la ñuy woo borom Mbour Géej yow la ñuy woo waaye doomu lay Géej Ndiaye lu sant ci bis yow la ñuy woo waaye xarit Ismaïla Ndiaye ndeysaan ñu ngi noonu Ousmane Sarr émile François Gomis Abdoulaye Diouf émile François Gomis Abdoulaye Diouf quart de finale Libidor moo la woon ginnaaw ren boobu quart de finale quart de finale Libidor moo la woon ginnaaw quart de finale Moustapha Dramé Ousmane Bar Ndiaye Assane Faye Ousmane Bar Ndiaye Assane Chérif Adramé Kairé Aliou Konaté Chérif Adramé Kairé Aliou Konaté ngi noonu daw nañ fàqat ko jëli nañ ko Mamadou mu nar mu koy wuyu laa ilaaha illallaah daa dox wala déet daanu ko booy bi dër na jëli ko day ñàkk day ñàkk day ñàkk dina ñàkk ay waay Mamadi dina ñàkk ndeysaan penalty la ci làmb waaw waaw daan na ko booy bi daan na daan na Mamadi Ndiaye Toubacouta ndaysaan ñu ngi ci compétition bi Boy Faye Toubacouta ndaysaan combat yi mu ngi commencé compliqué ci ñi ñu jàpp ni ñooy favori Mamady jaay ñàkk na Libidor a ngi ci digg géew bi Doudou Sané mu ngi ci digg géew bi Boy Faye Toubacouta Emine François Gomis mu ngi ci géew bi ndaysaan combat yaa ngi noonu Boy Faye Toubacouta Boy Faye Toubacouta Boy Faye Toubacouta ndaysaan booy fay Toubacouta Doudou Sané Libidor daan na ndaysaan Libidor daan na boy Toubacouta daw na jëli Boy Faye Toubacouta daw na jëli ko takk bi baax na Boy Faye Toubacouta rëpp na yegg nañ suuf Boy Faye ndeysaan Boy Faye Toubacouta booy Faye daw na jëli Toubacouta sol na ko caxabal wala mbot luy xaw tegal seize luy xaw booy Faye Toubacouta génn nañ saaku yi génn nañ saaku yi Boy Faye Toubacouta ndaysaan Toubacouta saay saay la ndaysaan Doudou Sané combat bi yàgg na ci moom xale bi bi bëreel daanaan la Boy Faye Toubacouta Toubacouta Boy Faye Toubacouta Boy Faye Toubacouta Boy Faye Boy Faye Boy Faye takk na ko takk bi baax na Toubacouta nga koy mbot rëcc na ndaanaan la na ko Boy Faye daan na Boy Faye daan na ko Boy daan na ko Toubacouta mu ngi doon bu garaaw Franc arbitre bi sifflé na Ndeysaan mbokk yi Franc moo leen woon ginnaaw mu ngi noonu moom i troisième combat am ci compétition bi. Ndeysaan. Ndeysaan. Franc daw na jëli. xale bi bañ na. xale bi daw na jëli ko bañ na ñu ngay bëree ndeysaan ñu ngay bëree ndeysaan mu ngi noonu Franc mu ngay bëree ndeysaan daw na jëli ko mot nañ ko Franc jàpp na wër ndombo Franc wër ndombo dina ko daan da daan daan na ko Franc daan na Franc daan na mbokk mu ngi bëre combat bu yàgg mu doon mu ngi noonu. waaye tey kay simal kenn demal mu ngi noonu. combat bi yàgg na. arbitre bi àtte na lu xew Doudou Sané na ndam papay général ndeysaan sa digga caajaay Cheikh général saa yu làmb tollee fii dinaa ñëw laaj la nga wax ma comme ni moo ko daan waxee tey bis bi lan nga yëg ban yëg-yëg nga am ci journée. jërëjëf sant yàlla bu wér di la sant bu baax. yëg si làmb bi amateur rek seetaan rek keneen indi ma fi dama ñëw pour seetaan si làmb bi. ni ma ko doon defalee favori actuellement nii làmb ji ci ñan nga jàpp ni ci seeni loxo lay mujj tey. favori làmb ji si ñeent lay génne waa rek. ñeent. waaw mais dina am jël bu dul leer fii nag si kanam tuuti. dina am dina am jël bu dul leer. waa si ponkal diggante Doudou Sané Serigne Ndiaye François Gomis ak diggante Libidor. ci ñeent ñooñu dina wër foofu. dina am jël boo xam ne dina fi am jaxasoo léegi tout de suite. Mm, ak booy fay ñoom cinq ñooñu ñoom ñooy jaxasoo. mu ngi ci actuellement mu ngi ci loxo yi ñaata mbër. nii nii nii nii. ci ñaar. ci diggante Serigne Ndiaye ak Franc. Serigne Ndiaye ak Franc. waaw gis naa tey ñu bari génn nañ tey gis naa Karamba gis naa Papis général gaa yëpp yëngu nañ mais da ngaa toog ci sa ruq rek nu wàccoo defoo dara lan la. dama am jot ak ñi bokkuñu. Saaraan ak Serigne bokkul. ma Saaraan ak Serigne bokkul. ñun ñooy Saaraan. ñee nga wax pour nga ne da nga ko mag ñan wàcc ñu. ma la ko wàcc ñan ñooy saaraan délégation. man ak ñoom duñu benn ñoom indiwuñu ma ci làmb bi sax yàgg nga maa gis làmb fi damaa ñëw seetaan si rek amateur la. wàccee ku ne di def démonstration Cheikh Bamba Zana du wàcc def. kon ma ñàkk personnalité nag ji li bi may def démonstration mooy bi ma fekkee fii si xoy bi saltige yëpp taxaw ma xam ne ñi mën nañoo nuur mën nañoo naaw ma def lu ñu mënta def ba nga jël barki dem bu fi esat Iba Mar Diop mais ñii taxu ma jóg bokkul sax maa ñoom du benn mënul nekk benn impossible xam-xam lu ma dama xam ñii nag dañuy jéem i tàkk bokkul fii su ma fi wàccee kon ma kon ma sama bopp man dama civilisé ma nga ko def nga sa garaam bubu ngëp sa xaalis di maye rek waaw non du loolu sax te amaguma xaru tabaski. xaru tabaski di nga am yàlla baax na. jili. non jili yow da ma mer ñoom nga ne ma wàcc dem dama non. boo jili yow bañ nga ma de. des fois nga jékki-jékki rek tànk da ngay tànk. waaw su may tànk sama wàllu bopp. mun naa dugg fii léegi yëngal tànk. mais pour ñi non jàpp ci li garage la mënul nekk jaajëf amul ragal ñoom nag ay jàmbaar la jaajëf. jaajëf Il y a actuellement un sac de tous les Sénégalais pour nous remercier en nous disant pardon. arbitre bi sifflé na Boy Faye Mamady Ndiaye Boy Faye moo la féete ndijoor Mamady Ndiaye féete la càmmoñ mbokk ñu ngi noonu Doudou xale ba ar Pape bu Doudou bu Pikine bu Pikine waaw Boy bu Pire bu Pikine bu Pikine waaw ah, man daa am Pape Maroon bi ma. Pape Maroon ma ne sax xam-xam. Boy Maroon bu Pikine ak ñu ngi ci compétition bi mbokk bu Pikine Pape Maroon bu Pikine ndaysaan Pape Maroon <laughs> Ada daan na Coly Faye loolu de la ñu wax laa ilaaha illallaah la ma nii doomu Fass bi daan na Coly Faye Ada Fass de kon kenn mënatu koo bañ ci làmb déedéet laa ilaaha illallaah ndeysaan Ndeysaan ñu ngi noonu Boy Faye Boy Faye ngi noonu Ndeysaan Boy Faye Ndeysaan ñu ngi noonu Boy Faye Mamadou Ndiaye Doudou Sané Ndeysaan Boy fay Doudou Sané Boy Faye Ndeysaan mu ngi noonu diggante moom ak Mamadou Ndiaye Doudou Sané Boy Maroon bu Pikine Doudou Sané Boy Maroon bu Pikine Boy Maroon bu Pikine Boy Faye Boy Faye jëli Mamadi Ndiaye Mamadi Ndiaye bañ na dinañ bëre ñoom ñaar Boy Faye Mamadi Ndiaye Boy Maroon bu Pikine ak Doudou Sané Boy Faye Mamadi Ndiaye Boy Faye may ñu ñu jël combat bi ah Boy Faye Doudou Sané Mamadi jël na tàkk daan na ko Mamadi daan na Boy Faye Mamadi daan na Boy Faye Mamadou Ndiaye daan na Boy Faye Libidor Serigne Ndiaye Libidor Serigne Ndiaye Libidor daan na ko daan Libidor Serigne Ndiaye deux Libidor Libidor Libidor bañ Serigne Ndiaye 2 daan na Libidor Ndaysaan Boy Maroon bu Pikine ak Doudou Sané Serigne Ndiaye 2 qualifié na Boy Maroon bu Pikine ak Doudou Sané Serigne Ndiaye 2 daan ndeysaan Boy Maroon ak Doudou Sané Maroon ak Doudou sa diggante ak Ndiaye Cheikh Bamba général waxoon na ko neewoon dina am ci combat boo xamante ni ci combat yi dina takk suuf <laughs> lam gis naa ko du génn ci combat yi boo xamante ni day takk suuf waaye baatini neen ak bëti neen duñu benn làmb saa su ne yàlla may doomu aadama lu mu gis loo xamante ni keneen gisu ko am na bu ci takk suuf la ma gis naa ko saltige caajaay Cheikh Bamba général tax koo wax ci micro bi ñëpp di dégg mu tudd ponkali ne ci ñoom ñooñu la combat ba takk suuf ba feeñ na polémique bi bari na Franc mu ngi noonu ndeysaan Franc ngi noonu ndeysaan Franc daw na jëli Franc daw na jëli ko jàppante nañ jàppante nañ na ko booy bi bañ na Franc fàq na sol na ko ña ngay bëre Franc jàpp na plaqué na ko mbot na yegg nañ suuf yegg nañ suuf bañ na Franc jàpp na Franc ak Ndiol Sana Franc takk na ko Sana bañ na Ndiol Sana ak Franc Ndiol Sana ak Franc Ndiol Sana ak Franc Franc koy buux génn na arbitre bi àtte na Doudou Sané Boy Maroon bu Pikine Doudou Sané daw na jëli ko ña ngay bëre Boy Maroon Doudou Sané Doudou Sané Boy Maroon Doudou Sané Boy Maroon ndeysaan Sana ak ak Sana ndeysaan ñu ngi noonu Sana ak noonu Zana ak Franc ndaysaan ñu ngi noonu ci compétition bi ba tey daw na bu du ak Boy Maroon bu Pikine Boy Maroon mu ngi koy mu ngi koy ngàdd di ko bëgg a batt bara jee lu mu naan Boy Maroon Doudou Sané Doudou Sané plaqué na ko bañ na Boy Maron Doudou Sané Franc ak Sokh ndeysaan Franc ak Ndiol Sana Ndiol Sana bu Joal ak Franc Ndiol Sana bu Franc ak Franc Ndiol Sana ak Franc yegg nañ suuf Franc takk na Ndiol Sana bañ na Franc jëli na ko plaqué daan na ko daan na waay Franc daan na Ndiol Sana jël bu rëy daan na ndeysaan ñu ngi noonu Ndeysaan arbitre baa ngi noonu. Franc daan na Ndiol Sana. ak Boy Maroon bu Pikine. Boy Maroon bu Pikine ak Doudou Sané. ñu ngi ci compétition Boy Maroon ak Doudou Sané. 800 000. Ndeysaan. Ndeysaan. Karamba isida Kara Karamba mi jar naa tuddee drapeau. jar naa parce que drapeau nag ku ko tuddee tamit dañ si war a jàpp. parce que ki la ki fi bàyyi ñëpp. la lambam. am na ci yow yaakaar. yaakaar nag dafa fort. ba pare ñëw na. waaw ba pare ñëw na wane liggéey ci liggéeyam yëngal bés bi animé bés maye xaalis maye allah. ko ci pare. macha allah Karamba. ndeysaan ne ko ci macha allah Karamba ay ca Doudou Sané. dégg ngeen ko ñu ngi noonu ci Doudou Sané ak Boy Maroon bu Pikine ñu ngi noonu ci combat bi Doudou Sané Boy Maroon bu Pikine daw na ndaysaan mu ngi koy xëcc ma ngay plaqué Doudou Sané ndaysaan Ndeysaan ñu noonu. ñu ngi noonu. Ndeysaan. Ndeysaan ndeysaan Franc ngay yëngu bàkk daw ba ci Serigne Ndiaye mu ñëw taxaw ndeysaan ñëw na ba ci Serigne Ndiaye de joxañ ko ne ko kaay

càmmoñ moom Babou Babou Kaling arbitre bi na mbokk yi ma ngay lewaatoo Kaling ma ngay lewaatoo ndaysaan Babou Kaling ma nga daw na jëli ko bañ na ndeysaan baaboo ngi noonu Franc ngay jaayu ndeysaan daw na jëli ko jaxabal nañ ko Babou Kaling jaxabal jaxabal day bañ Babou Kaling daanaan la ma ngay bëre ña ngay bëre ñu ngi noonu ndeysaan ndeysaan ñu ngi noonu compétition baa ngi noonu Mamady Ndiaye Emine François Gomis ndaysaan Mamady Ndiaye Emine François Gomis Serigne Ndiaye Doudou Sané ndaysaan loolu combat boobu du jeex mukk feex ñu ngi si tournoi du jeex daan nañ ko Babou Kaling ah Babou Kaling kenn du moom waaye boo daan nañ ko nañ xel doxaar la boo xam ne saa bu ñëwee duñ ko bàyyi xel bu demi finaalu la tey finaalu ndaanaan la mais ñaar muy daan Babou Kalim Doudou Sané Serigne Ndiaye tay balaa gëm ne lamb ci day yegg ñoom ñaar ah. dañoo yëg loxo kenn jàpp bi mu jàppoon ci karaw gi bii dina ko jàppal bu ko jàppee Doudou da koy dóor te bu ko dóoree dañuy disqualifier Doudou te yàq taabu bi leer na laaj de leer na la waxaatal waxaatal wax ji nga ne bali la bu jàppaatee garaw duudu duudu da koy dóor bu ko duudu dóoree dañ koy disqualifié buñ disqualifié duudu taabal bi lay jëm yàq ko yàq taabal Malick Ngom ak ci door ak yëpp wuti fuñ na ko gars yi jàpp ko mu arrangé ko tey buñ ko ko defee taabal bi waaye Mamady Ndiaye at euh, Ibn France waa Gomis est ce que xam ne Mamady musuma seetaan fu mu daane Franc. musoo ko seetaan. déedéet. mais seetaan nga fu ñu ba taay. seetaan naa cinq xaw ma six. ah kon tay du yomb. waaw sa Mamady nag ama dénk la ñaar saa bu ñëwee toog si kaw tribune demi finale demi finale. moo mel ni mu ngi quart de waaw. waaw kon nañ ko bàyyi xel. ay ca ñu ngi noonu mbokk yi Ndeysaan ñu ngi noonu Voilà. Ouais, dina ci diggante Tony Junior ak Modou Jam Téeri Tony Junior Modou Jam Téeri ndaysaan Tony Junior Modou Jam Téeri Tony Junior Modou Jam Téeri daw ñoom ñaar Tony Junior Modou Jam Téeri Tony Junior Modou Jam Tony Junior Modou Jam Téeri Tony Junior Modou Jam Téeri ñu ngi ci compétition bi Tony Junior Modou Jam Téeri Modou fi mu jàpp baax na Modou fi mu jàpp baax na Tony ma bañ Tony ma bañ Tony ndaanaan la ci làmb champion ci làmb waaye Modou fi mu jàpp sori na baax na Modou tël na ko Tony bañ na day bañ Modou dugal bopp bi te Modou day dugal bopp bi ba tey Tony Junior Modou jam teeri Tony Junior Modou jam teeri ña ngay jàppante Tony Junior Modou jam teeri Modou Jam Téeri Tony Junior Modou Jam Téeri Tony Junior Modou Jam Téeri Tony Junior jàppante koy jéem a wàccee Modou bañ na Modou Jam Téeri moo nar a xew Modou Jam Téeri Tony Junior Modou Jam Téeri du Jam Téeri Tony Junior Modou Jam Téeri Tony Junior mbër may ñu daw na jëli na yegg nañu suuf wala déet te dañ koy faqat Modou bañ na da ko a wër da ko a wër daan na ko Tony Junior daan na Modou Jam Téeri ndaanaan la ci bëre waka la la Tony pangalang la daa war a bëri ci bëre dóor bi bëri daan na Modou Jam Téeri Tony daan na ko daan na ko jël bu rëy mbokk yi arbitre bi sifflé na Franc moo la wan ginnaaw Mamady Ndiaye lool ñu ngi leewaatoo ñoom ñaar dara xewagul Franc Mamady ñu ngi leewaatoo Franc Mamady Franc Mamady Ndiaye Franc Mamady Ndiaye ñu ngi demee wet Franc Mamady Ndiaye ay waay may leen ñu balaa booy balaa Serigne Ndiaye di bëre Doudou Sané ci demi-finale yi Franc Mamady Ndiaye Franc Mamady Ndiaye Franc ngi jàppante ba Franc Mamady Ndiaye Franc Mamady Ndiaye Franc Mamady Ndiaye Franc Mamady Ndiaye ba tey dara xewagul Franc Mamady Ndiaye Franc Mamadou Ndiaye ndaysaan ngi waaj a siffler beneen combat bi dox ci diggante Doudou Sané ak Serigne Ndiaye 2 Franc Mamadou Ndiaye arbitre bi atte na Doudou Sané Serigne Ndiaye 2 daw na jëli ko Serigne bañ na tey fu ñuy ñoom ñaar Doudou Sané Serigne Ndiaye Doudou Sané daw na teq Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye bañ na ngàdd na ko Doudou Sané Serigne Ndiaye Doudou Sané Serigne Ndiaye Doudou Sané ngàdd na ko Doudou Sané Mamady Ndiaye ak Franc Doudou Sané teq na ko Doudou Sané seeni bu bari ñee ngi noonu di yëngal ndeysaan Serigne Ndiaye Doudou Sané Serigne Ndiaye Doudou Sané Serigne Ndiaye Doudou Sané Serigne Ndiaye Doudou Sané Serigne Ndiaye Doudou Sané ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar ngàdd na ko wax naa leen ko ngàdd yi ba tey ay dóor la Sëriñ Production ma woote le lendemain de la bi sifflé na. Serigne Ndiaye ci wàllu bee ngi am Franc. ak Mamadi Ndiaye. Ndeysaan yi ñu ngi noonu ci combat bi ba tey. Mamadi Ndiaye. ak Franc Serigne Ndiaye ak Doudou Ibrahima Doudou Sané Serigne Ndiaye 2 Doudou Sané Serigne Ndiaye 2 ñu ngi noonu ñoom ñaar ba tay dara xewagul daw na jëli ko Doudou Sané jëli na ko Doudou jëli na ko Doudou Sané Serigne Ndiaye génn nañ saako yi génn nañ saako yi Mamadou Ndiaye ak bo ak Franc génn nañ saako yi plateau bi du yomb arbitre bi sifflé na Serigne Ndiaye 2 ak Doudou Sané Franc ak Mamadou Ndiaye ñu ngi ci compétition ba tey daw na jëli ko ndeysaan ndeysaan ñu ngi noonu ñu ngi noonu ñu ngi noonu ci compétition bi ñoom ñaar seen combat mënul yomb Ndeysaan ñu ngi noonu Serigne Ndiaye 2 ak Doudou Sané Serigne Ndiaye 2 Doudou Sané Mamadi Ndiaye Mamadi ak Franc Franc am na ndam Franc am na ndam Franc am na ndam ci kaw Mamady Ndiaye wala déet Doudou Sané daw na jëli ko wala déet daa mel ne arbitre bi joxe gu ndam de dañoo mi temps ñoom ñaar Doudou Sané Serigne Ndiaye combat bu nar a metti Doudou Sané Serigne Ndiaye ñu bëre ñoom ñaar Doudou Sané Serigne yombul ci ñoom ñaar ñëpp demi bu xaw a compliqué Doudou Sané daw na Serigne jël na ko Doudou Sané bañ na Doudou Sané tekk na Doudou Sané tekk na Serigne Ndiaye Doudou Sané tekk na ko Serigne Ndiaye 2 ak Doudou Sané Mamadou Ndiaye ak Franc arbitre bi sifflé waat na ndaysaan ñu ngi noonu Serigne Ndiaye 2 Doudou Sané Ndaysaan arbitre baa ngi noonu sifflé na Serigne ak Doudou Sané Serigne Ndiaye 2 ak Doudou Sané Serigne Ndiaye 2 ak Doudou ñu ngi noonu ci compétition bi Franc daw na jëli Mamadi Mamadi bañ na Franc Mamadi Ndiaye Franc Mamadi Ndiaye Franc Mamady Ndiaye ñu noonu Franc Mamady Ndiaye Franc Mamady Ndiaye Franc Franc Mamadou Ndiaye combat bi yàgg na Franc Mamadou Ndiaye Franc Franc Mamady Ndiaye arbitre bi nga waaje sifflé waat Doudou Sané Serigne Ndiaye bi sifflé na Serigne Ndiaye de Doudou Sané daw na jëli ko Doudou Sané jëli ko jàppante nañu Serigne Ndiaye bal na Serigne Ndiaye bal na Doudou ji wala déet Serigne Ndiaye de Doudou tel na ko yegg nañ suuf Serigne Ndiaye Doudou Sané Serigne Ndiaye koy plaqué Doudou Sané bañ na ñu ñoom ñaar combat bu rëy arbitre bi na arbitre bi atte na avertissement Doudou Sané ndeysaan album bi sifle na il faut ngeen nekk ay sportif xam ni Doudou Sané ak Serigne Ndiaye lamb la ngeen génn ci supporters yi bëre simple xamee wuñ leen lii ay sànniwaate butéel ay sànni ndox loolu kenn xamu ko ci bëre simple Serigne Ndiaye 2 Doudou Sané Serigne Ndiaye 2 Doudou Sané Serigne ak Mamady Ndiaye ñu ngi ci combat bi ba tey Franc ak Doudou Sané Franc Mamady Ndiaye Doudou Sané ak Serigne Ndiaye 2. Doudou Sané ak Serigne Ndiaye 2. Doudou Sané Serigne Ndiaye jàppante nañ ba tey. Doudou Sané jàppante nañ ba tey. Franc sol Franc Mamady Franc Mamady Franc Mamady Ndiaye temps bi jeex na dox ci diggante Franc ak Mamady Serigne Ndiaye 2 Doudou Sané Franc na ndam ci kaw Mamady Ndiaye Doudou Sané Ndeysaan Doudou Sané Doudou Sané ak Serigne Ndiaye 2 jàppante nañu Doudou Sané Serigne Ndiaye 2 Doudou diggante Doudou Sané ak Serigne ku daan Franc ngay am final fàqan na ko war na ko ndomba Doudou Sané war na ndomba Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye ko génne na ko kaay nee ko kaay bàyyi sengoor bi Doudou bàyyi sengoor bi Doudou Sané Serigne Ndiaye bàyyi sangoor bi il faut que ngeen xam ni làmb la Doudou Sané Serigne Ndiaye benn sens sànnante galaaj ak sànnante xeer yi amul njariñ ci làmb amul benn sens Franc yëngu Franc yëngu na Franc ma ngay yëngu Franc ma ngay yëngu ndeysaan xoolal Doudou Sané daal <laughs> Doudou Sané jaaxal na cey làmb daw na dëkki Franc bàyyi na Serigne Ndiaye moom doon bëreel dem ci Franc làmb ji yëngu na ndeysaan Serigne Ndiaye 2 Doudou ñu ngi noonu ci compétition bi Doudou Sané Serigne Ndiaye arbitre bi ngi waxaat ñoom mbokk yi bu leen fàtte Doudou Sané am na deux avertissement bu ko Serigne Ndiaye mu génn day ñàkk làmbam bàyyi leen ci xel arbitre bi sifle na féete la càmmuñ Doudou Sané féete la ndijoor ñu ngi waat fii ci stade Diop Iba Mar Doudou Sané daw na jëli ko Serigne Ndiaye da koo séen tëru mu daw rocce ku waat génnaat daw na ngàdd ko dinañu bëgg a jàppante dinañ bëre ñoom ñaar Doudou Sané Serigne Ndiaye Doudou Sané Serigne Ndiaye Doudou Sané Doudou Sané Serigne Ndiaye Doudou Sané Serigne Ndiaye Doudou Sané Serigne Ndiaye ñu ngi ci combat bi ba ñaari mbëri jàppante nañu Serigne Doudou Sané da ko bëgg bañ na lu nar a xew Serigne Ndiaye Doudou Sané Serigne Ndiaye Doudou Sané Serigne Ndiaye Doudou Sané Doudou daw génn daw ko Serigne Ndiaye Doudou Sané Serigne Ndiaye jàppante na ñoom ñaar Serigne Ndiaye Doudou Sané Serigne Ndiaye de Doudou Sané Doudou Sané dóor na ko tànk Serigne Ndiaye esquive arbitre bi sifflé na Serigne Ndiaye daw na jëli Doudou Sané mu ko bëgg a fàqat daa bëgg a jeexal lamb ji Serigne Ndiaye daa bëgg ji Serigne Ndiaye Doudou Sané Serigne Ndiaye Doudou Sané mu ngi koy génnee koy génnee bu ko génnee mu ñàkk génnee na ko Serigne Ndiaye génnee na Doudou Sané génnee na ko lan fan la ñuy mujj fu ñuy Doudou Sané ak arbitre bi ndeysaan kott na arbitre bi jooy ndeysaan kott na arbitre bi jooy moom Doudou Sané Doudou Sané kott na arbitre bi jooy ndeysaan Doudou Sané kott na arbitre na arbitre jooy ma jooy ma kott arbitre bi ma ngay jooy kott na arbitre bi ma ngay jooy ndaysaan Serigne Ndiaye 2 amaan na ndam ci kaw Doudou Sané Doudou Sané kott na arbitre bi jooy ma ngay jooy ma ngay jooy jooy yu metti moom Doudou Sané ma ngay jooy jooy yu metti ndaysaan ma ngay jooy jooy yu metti ma ngay jooy ndaysaan Doudou Sané Serigne Ndiaye 2 ak Franc ñoo finalu eh, final raw gàddu bi arbitre bi sifflé na ko Ngor Mar Seck ak Ousmane Ngor Ndiaye ngoor Mar Seck moo la féetee càmmoñ Ousmane Ngor Ndiaye moo la féetee ndijoor ñu ngi noonu ci finalu raw gàddu gi ngoor Mar sekk ak Ousmane Ngor Ndiaye ndaysaan ngoor Mar sekk moola la féetee càmmoñ Ousmane Ngor Ndiaye moo la ndijoor moo wan ginnaaw Ngor Mar Seck Ousmane Ngor Ndiaye Ngor Mar Seck Ousmane Ngor Ndiaye ngoor Mar Seck Ousmane Ngor Ndiaye ñu ngi noonu ndeysaan ci finalu raw gàddu gi daw na plaqué ko ndeysaan Ngor Mar Seck Ousmane ngoor Ndiaye génnee na ko saaku yi avertissement Ngor Mar Seck arbitre bi sifflé waat na arbitre bi sifflé waat na ñu ngi lewaatoo ñu ngi lewaatoo Ngor Mar Seck ak Ousmane Ngor Ndiaye plaqué na ko Ousmane Ngor Ndiaye yëkkati na ko ci suuf daan na ko Ousmane Ngor Ndiaye daan na daan na xaalis may nañ ko xaalis may nañ ko xaalis Forza baa ngi noonu Mamou Zidane ak Tony Junior mbokk yi Tony moo la féete càmmoñ Mamou Zidane moo la féete ndijoor arbitre bi sifflé na ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar Mamou Zidane Tony Junior Mamou Zidane Tony Junior Mamou Zidane Tony Junior Mamou Zidane Tony Junior ña ngay lewaatoo Mamou Zidane Tony Junior Mamou Zidane Tony Junior Mamou Zidane Tony Junior le Tony Mamou Zidane daw na jëli Tony Tony tëru na ko jàppante nañ Mamou Zidane ak Tony Junior jàppante nañu Mamou Zidane Tony Junior Mamou Zidane Tony Junior Ndeysaan Mamou Zidane Tony Junior aysaan ñu ngi noonu ñoom ñaari xale yi Tony ngemb bu orange Mamou Zidane tem ngemb bu xonq Mamou Zidane Tony Junior Tony sëq na ci geño Mamou Zidane daa bëgg Tony bàyyi Mamou Zidane Tony Junior Tony jàpp na fi mu jàpp baax na fi mu jàpp koy tegal seize Mamou Zidane day bañ wala déet mbot mbot mbot action ci kaw action continuer nañu Mamou Zidane mbot na Tony Tony mbaar na ko mbaar na ko daan na ko Tony daan na Mamou Zidane Tony daan na ko Tony daan na Tony daan na Tony daan na

lamb lu waay doon jaay léegi mu lamb compétition bi ay ndaanaan ñoo fi nekkoon ay ndaanaan di compétir ay ndaanaan di toog ba ñaari ndaanaan finalu muy Emine François Gomis ak Serigne Ndiaye 2 bu Faas mbokki Franc moo la féete ndijoor Serigne Ndiaye moo la féete càmmoñ arbitre bi sifla na mbokki Serigne Ndiaye daw na jëli ko Franc Serigne bañ na bañ na lu xew Serigne Ndiaye jàpp na Franc yegg nañ suuf jugaat nañ ñu ngay wure ci bëre laa ilaaha illallaah ñu ngay wure ñu ngay ñoom ñaar laa ilaaha illallaah laa <laughs> eh, eh, ilaaha illallaah eh! waaye Serigne Ndiaye daan na Franc jël bu rëy laa ilaha illallah da koo xar yëkkati ba ci kaw dóor ci suuf eh. waay Serigne Ndiaye waay eh. Ibrahima kaay kaay baal ma façon bëre bi façon bëre bi façon bëre bi façon bëre bi. sant yàlla bu baax sant yàlla bu baax. danga bëre fi danga bëre dem final am sëriñ am am Franc ndeysaan may leen gars yi dal leen rek gars yi dal leen leen. Franc ñëw na may lañu ñu jël image bi ndeysaan ndeysaan Franc ñëw na Franc sportif ba dem na def leen ko ndànk may leen ma may leen ma dimbali leen ma. taxawal la. ci mikaayu Serigne Ndiaye bi kenn mënul téye sa bopp ndax bëre bi Serigne Ndiaye bu rëy bi mu bëre ba daan amateur yi kenn jugut ndax fason bi bëre bi Serigne indi ñu bari xamuñu ko woon ci moom mën naa wax li mu bëree ni mu bëree Serigne Franc Serigne Ndiaye nuyu naa la Serigne Ndiaye façon bëre bi nga bëreeg Franc ban bëre nga bëreeg Franc. non bëre ay bëre Franc champion la mbër la sportif la jeune beaucoup xam nga champion la dimanche passé la bëre tey bu ñu compétir champion la wax dëgg yàlla mënu ma wax nag suñu borom moo ma kenn sant yàlla bu baax samay entraîneur ñu ngi entraîné waaye ngi di Fass sama mbaa tawaage mu ngi France yaakaar dafa jàmm sama mooy jaraaf xam nga xam nga arbitre daf na nga agressé Franc. dañ la ma sax samay entraîné ba pare. parce que ma mu ma dara dama teg ay loxo ñu may entraîné ma tàggat man bu ma gërëm leen. da nga naan Kante Boña Wakam ma ngi sant bu baax a baax a baax Kante Boña Wakam Maxi Bodi ma ngi sant bu baax di gërëm xam nga ah, xam nga amul ma ngi sant bu baax di ko ñaanal jàmm ak salaam xam nga waa ngi di Fass yëpp su ma Abass Ndoye ma Tapha Gueye ma nga seen baax sama gars yi ma ne am seen bay quoi. bëre bi na ci bëre bi nga bëre ak Serigne bëre bi nga bëre ak Serigne Franc arbitre na bëre bëre bi nga agressé ko. mais moo tax nga bëre noonu te bu njëkk da nga ko daan xaar mu ñëw. non Franc champion la mbër la mbër kaamil la Franc day bëre waaw mais sant ñëpp daal sant ñëpp sant ñëpp sant suñu borom baax nag di nuyu baax yow di la sant.